association buy liggéey ci wàllum màdd ci Casamance jot na récépissé woom ngir ñu mën a protéger seeni produits boobule certificat am solo lool ci wàllum production produits locaux yi. solos ndaje bi nag moom mooy tey dañu ñëwoon tey pour jébbal association bi nga xamante ne moom moo doon liggéey tey ci wàllu màdd de Casamance bi seen certificat maanaam benn. lijaasa la boo xamante ne tey benn banqaas bu nekk Afrique bu ñu tuddee OAPI organisation africaine de la propriété intellectuelle moom moo ko moom moo ko bind signé ko pour wax ni waa association bi tey d'accord naa ni liggéey bi ngeen liggéey ci mardi bi 2017 ba léegi mucc na ayib et képp koo xamante ne mu ngi koy jëfandikoo ci produit yooyu noonu mu ngi jëfandikoo produit boo xamante ne produit de qualité la et que keneen itam amatul droit amatul sañ-sañu di jël produit bi di ko tuddee noonu fekk du fekk nekkul produit Made de Casamance. kii di présidente association Made de Casamance kontaan na lool ci certificat bi te di xam ne ni tamit dina gën a tax ñu protéger bu baax seeni produit certificat yi daf ñu indi xaalis bu bëri parce que day gën a cher d'abord dañ koy jaayee xam nga autant dañ jaay Sénégal rek amuñu moyen. pour jaay international mais au moment où nous parlons aujourd'hui on est sûr que suñu madd bi dafa suivre benn processus bu nga xam ne da dugg na fu nekk dugg na laboratoire autorité sénégalaise séntu nañ ko OAP séntu na ko ba mu leer leen lii tout être humain ku ko consommer du am problème. indication géographique mat de Casamance dina gën a yokk opportunité yi ci wàllum production locale bi waaye tamit préserver lii di patrimoine naturel ak culturel bu région bu Casamance.